auzu billahi mina seytaani rajim yi bisimilahi rahmaani rahim sant yàlla julli ci sangub sang yi sant suñ ñaare waaju sant suñ wasila cheikhul xaddim di leen nuyu baax di leen jaar yéen ñi nga xam ne saa su ne yéen a baaxoo di jàkkaarloog Waarwi TV nekk aralu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasool Waarwi TV ci ndogu yi nga xam ne mi ngi koy doxante ci weeru sell wi di weelu ngëneel ci diggante Cheikh Rafaal Cheikh Ahmadou Bamba ci gan gi ñu ko doon séntule ak teranga ji nga xam ne Cheikh Ibra da ko doon terale Cheikh Rafaal njabootam nag des fi tey di ko def ndogu yi macha allah 2021 ku ko xool da xam ne ren wax dëgg yàlla ndogu yi ni mel ren ah dëgg yàlla xol yëpp naat ñëpp la seen xel ci njabootu maam gi nga xam ne ñoo fi des ci jamono di suñuy kilifa di suñuy waaju te mate ko lool te mate ko ndax kenn ku ci nekk rek bu sa waajur dellusiwaatoon jamono wala sa maam siwaat jamono doo sensé toogin tooginu Cheikh Ibra rek ngay doxe xam ne wax dëgg yàlla taxawaayam ku ne xam na ko fii nga xam ne fi la bokk ci muy njaboot Cheikh Ibra taxawaayam fii ci paalin gi nga xam ne fi la dëkk ni muy taxawoo askan wi ak mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ku ci nekk rek macha allah am ci moom cofeel ak yëg-yëg ci yitteem ak pas-pasam gi nga xam ne pas na ko ci digganteem ak maamam digganteem ak njaboot gi li ma naan saa su ne Waarwi saa su yeewoo leen di li leen di neex ñun ca la ñuy dox ndax amul lu dul seextu sëriñ Tuubaa Cheikh moo tax suñ xëyee bu nekk rek dañuy wër di doxoon tey ji nag di àjjuma ji nga xam ne ah macha allah mooy àjjuma ji nga xam ne moo mujj ci koor 2021 ñu ñëw fii nag fekk ko fii ci Palel fa seenee waxtaan ak sunu waajur diggante Cheikh Rafal ak ndogu yi ak diggante njaboot gi ak àdduna ni mu soppi nit ñi fàtte démb xamatuñ fi ñu teg suñu tànk te buñ royee ci ñoom ñii rek kenn ku nekk fa nga war a teg sa tànk danga fa teg ndax ndigal ak pas-pas ak yar ko taalibe loolu lan xam njaboot bi Ibra ñu fekk bi sama baay booy ñu ngi leen baax di de ziare Fall yaram. asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh noonu nuyu baax di di leen ñaanal jàmm ak salaam ñaan tamit seen eh, seen kii bi seen seen bi ngeen indi fii. TV saa boobu dafa leen ci barkeel. te bokk ci ci yàlla boole. di leen jàmm ngi bokk télé bi yëpp lii may laaj sax moom xam naa loolu doot naa ci xam ko. waaye nag li ko moom bu la mën naa wax ba ci xam rek waaw. léegi bi la digal wax ne bi noonu ci ndigalal suñu nga xam ne ñoo fi nekkoon ginnaaw seen wax di ko liggéey di ko liggéey yàlla dogal liggéey bi nekk tey jii suñu kilifa loxo suñu kilifa mu siñ seet bi ci ci loo xam nekk fii ne ak jalo jabal seen faal yëpp ñoo ñëpp rek kenn ku sa ki moom moom nga wutu nga xam ba ba la ba ñëwee bàyyi la liggéey bi jox a rafetee a baaxee def nañ ko muy la waaw moom ci kii daa bokk ci 15 000 faal ci ki doon bokk waaw waaye nag liggéey bi liggéey bi itam foofu laa ko yóbbu ci moom laa ko yóbbu toog liggéey bu Mbàkke te itam sama kër yi nga Mbàkke yoo xam ne fas mi ma jox ci ñu nekk bii moom ma leen jël moo jox ne ma da mooy toog yi toog weer yi waaye nag sama kër yëpp fii ne sept fekk leen ko fi li moo joxe ndigal danaa wut yeneen cin toog ci yooyee moom yooyu ñoo bokk yeneen léegi indi ko fii yóbbu ko Mbàkke loolu ay yokku la waa kon gis na baax dégg la rek moom kenn ko ni jàpp nañ ci xanaa kay soo ñëkkee bokki murid yi taalibe yi waaye man nekk na nga gën a fonk liggéey bi te gën ko téye gën ko gën ko fonk ndax ndigal kat koo yokkul yàgg wàññi ndigal moom yokkal ko baax a baax bàyyi fa nag doy rek bàyyi fa nag gën a woote yi ñëw naa joxe naa li naa déedéet noonu du ne ndaw yi fekk ñu ngi war bu ñu xëyee war bu ñu xëyee mënoon doog loo loolu loolu loolu joxoon naa démb la bàyyi tey joxoon naa bu njëkk la bàyyi tey déedéet léegi weer weer ngay abbis bu ne bu ñu toggaloo rek fexe ba sa sa jëf dem ci biir ndax ñuy war kat weer weer dañu war dañu war weer mu jeex te benn bis lañ ci lañ ci seet muy muy léegi xaral bi fay du gannaaw da nga joxe ay te bis bis bi nga joxe bis bi nga joxul ah maanaam moom mooy bis bi gën ci bi gën ci yow kon bu waxee rek da nga xam sa ñax def seen wàll loolu moom moo ngi dégg bëgg teel bi yëpp rek waaw kon nekk ñu gën a góorgóorlu ci teel bi ndax ndaw loo gis am na kër gu mu bokk lépp lu ko xam ne mooy si ci kër gi xam ne mooy si yëriñ xool ci moom ndax kër goo fa mën dem am ñoo xam ne nañ ci neex borom kër ga am ñoo xam ne loolu la fa neex borom kër moom ak tere waaw ah, ak di dig lu baax santaane lu baax nekk ci waaye ñëpp ñoo bokk jëm waaye ñi ndaw moom kenn ku nekk booy ki nga xam ne moo nekkal nga xam ne moo moo si xool ci moom xool ñu mu yar te di ci nga xool ci ñooñu te bañ a ci keneen wala moom mooy yoon wi ab yar ak teggin ak ak laab Baay Faal moom ab yar la ay teggin la ak seel la ak laab la bëgg lu baax wax woon loolu moo bay Baay Faal ñun ñi xam ne noonu ñu xool Seex Faal la ci loolu la ne waaw kon yéen fay ma nekk di ndaw na nga foog foog loolu bul foo bu jaaxaan bu nekk loo xam ne bu bu bu lu wax xam ne waru ci dugg bu nekk nekk déedéet yow nekk ci war nekk rek lu baax loolu nga xam ne gis nga mooy xibaar ne oreille xam ne gis nga xam ne a yow romb ko yi moom noo ñëpp rek tey ñaanal sëriñ bi mu yàgg loolu te wér sëriñ Mountakha Mbacké ak sëriñ Cheikh Fall jëm ak mboolem njaboot suñu Touba geek mboolem njaboot suñu maam Cheikh Ibrahima Fall waaw ndogo yi comme ni ko ni nga koy déggee rek li fi suñu maam Cheikh Fall bàyyi woon loolee la sëñ Cheikh jëm yor ba tey noonee ñu ko daan taxawlee suñu jamono suñu maam Cheikh Fall noonu yi lañ koy taxawlee sëriñ fees sëriñ Cheikh Fall jëmm kon yaakaar naa bu dee am na lu ci yokk mooy ndab yi ak ci ni loolu mooy lu ci yokk waaye nag na ko na ko na ko Cheikh Ibra sose woon tey jii kii ko fi tekkal taxawee na ko taxawaay bu mat sëkk waaw lii nag cin yi boo ko jisee moo cin yi ñuy taal ca Mbàkke yi ñuy taal ka sëriñ Cheikh Fall jëmm ñooy ndax bu ñu noppee fii dañu koy def ci ay ndab yóbbul ko ko bu ñu demee ñu boole ko ci ndog yi jëm Touba ak Njaaréem ndog yi nag euh, ni ñu koy taxawee mooy fexe saa bu ñu xëyee sangu ba set laab nekk ay nit yu yu xam li ñuy def ñëw liggéey ko ci anam yi nga xamante ni noonu la ko sëriñ bi bëggee saa bu ñu xëyee fi mu ne kenn ku ci ne balaa ngaa laal cin bi di nga làmp ci sa poos loo xamante ne loo ciy tàbbal la cin gi nag amul lenn loo xamante ne nii lu ñu ko lu ciy def la lu mu lu lu bokk ak liy dem ci kër gi lépp loo ci gis lu ne rek lu ñu ber la tekku na le ñam wi ñi ngi koy toggee ni ñu ko déggee woon nga xam ne bu njëkk dañoo xam ne suñu maam Seera Fall bu daan xool ndaxal da daan jël ab bant jam ko ca bu ñoree mu xam ni bu bu jàllee mu xam ni ñor na waaye jamono nag dem na ba toll foo xam te ne fii ñu toll yii ñu defal ay ginaar la ginaar moom bu fekkee xam nga bu liggéey mën liggéey mën nga ko liggéey ba mu àgg te du soxla yenn yi bu dee li jëm nag ci wàllum soos bi muy àndal ak pompiteer gi lu ci ne lu ne dañu koy xayma ba xam lii kat la ca war a dem la ñu def ko ca waaye nag saa buñ ci noppee ku ko xool ba ko jëfandikoo di nga xam ne lii kat jëfandikoo loo xamante ne nii waajal nañ ko fañ ko war a waajalee waaw kon daal loolu moom mooy li nga xamante ne nii mooy moo ci moo ci moo ci moo ci moo ci moo ci xéewal waaw boole ko nag liggéey bi deesu ci deesu deesu ko caaxaanee deesu ci kaf deesu ci ree fii ak ñoo ngi ci rek nañ xam ni sëñ bi lañ jàkkaarloo mu mel ne bu ñu toogee ci kanamu sëriñ bi ni ñuy doxalee bu ñu nekkee fii ci liggéey bi noonu noonu noonu noonu lañ koy doxalee mënta ñàkk mënta ñàkk waxi sëñ Tuubaa la ne sama tey gu ne dina gàcceel sama démb loolu nag bu ko waxee ñëpp a ngi ci biir kon suñu Cheikh Fall jëmb lépp lu mu def ren bu déwénee mu def mu def lu ko ëpp waaw loolu nag moo dox ba tey ji agsi ñu am cin beneen cin bu ñu dolli bu agsi bu agsi fii kon xam nga ak yokk la waaw <laughs> ndax daaw ni mu demee la woon ñu toggee ci kër yi waaye lii cinu ko yokk la boo xamante ne nii sëriñ bi suñ Cheikh Fall jëmb da koo sas rakkam wi mu koy taxaw saa su nekk ci këram gi di ko bu noppee jël ko yóbbul ko yóbbul ko ko fee mu nekk ca Mbàkke taxawaay bi lan la war ni ni def jëmbale Baye Fall te yoonu murit eh, yenn loo xam ne luy luy luy lu fi àddina lépp baatin la eh, yan ñaax ngay ñaax ndaw ñi nga xam ne dañuy def la leen neex tey suñ xam nga yoon wi luñ ci yokk amul la fi daan jëriñe démb jamono suñ tubaa ba tey moo fiy jëriñe lépp lu àndul yar ak teggi sunu borom ko njëkk buggul kon sëñ Modou Aminta nag dafa am bis ñu laaj ko ci Baye Fall. mu ne Baye Fall dafa am ak bàyyi sa bopp nit ki nag boo demee ba gis ko mu wuyób Baye Fall nga xool ko mun a gis ci moom lenn loo koy xeebee kooku ku bàyyi boppam la waaye Baye moom ku mu jaxasool ku mu jaxasool di nga xam ni jaxasool daal ku jar a jaxasool Baye Fall du manqué Baye Fall dafay civilisé hmm? Baye day bëgg lu baax xam ko te nekk ci loolu ndax bari na ñoo xamante ne nii fu ne balaa ñu laa jàppee Baye Fall da ngaa am melo waaye na xam ne nag dëgg-dëgg Baye Fall moom boo ko génnee ci murit rek kooku moom xool ber ko fee te xam ne bokkatul ci Baye Fall yi Baye Fall buñ ko dee wax ab murit bu dëggal moo moo tax ñuy waxu Baye Fall ndax ki bàyyi léppam jàpp suñ tubaa képp kooku buñ dee wax murit saadix kookoo tax ñuy wax murit saadix waaw kon Baye Fall moom loolu nag foo dem di nga ko fa fekk foo dem fu ne di nga fa fekk ñu mel nii ak ñu mën na leen waaye nag nit boo ñëwee mu ngi mel ni boo toogee ci ndax boo xool la nga ci soxla mën nga cee jël mën nga cee jël dem mhm. kon li nga xamante nii bokk ci muy ay ñàkki teggin ak i ñàkki yar gone yoo koy def kenn digalu leen ko te yit du benn kilifa goo xamante ne nii dina ko gis mu doon koo xamante ne ku leen ci jàppale wala lu ci mel la mhm. ñoom ñi saa su ne sëriñ bi bu weer wi bu ñu ko séenu bu njëkk mhm. lay dajale mboolem mbokk yi ndongo yeeg taalibe yëpp ñu daje ci kër gi ñi fi newul sax dañ dees ne leen ko audio yónnee leen ko mu leen di ñaaxaat ci taalibe ak ni nga xamante ne noonu la bëggee noonu la bëggee kii donte yar na leen ci bañ xam ko ni xam ne nii lañu war a doxee waaye nag ak ak dolli la soññi moom saa bu ne saa bu jógee rek ak dolli lay doon ci ci ci nit ki kon daal ñu xam ni li ci nekk te bokk ci loolu moom foo dem di nga ko fa fekk waaye nag sëriñ bi moom li mu woote mooy ay yar ak i teggin ak tegu ci yoon ndax togg ba mu baax nga jébbal sëb sëriñ bu ca tooñ amee lu luñ lu ca am lu ne yow la yow a waaw